préparation finale par équipe sama gars yi ngi waouh. de waaw waaw préparation échauffement la finale par équipe le drapeau du chef de l'État Père Laye Adjoin. adjoint maa de Mama Badara Khe, Paponga mon médaille préparation deuxième. pour la grande finale contre. Fatou Diallo. l'équipe de Kaolack. équipe président des entraîneurs Mon jox diplôme. félicitations. Fatou. aca arbitre ba final 66 kilos ban équipe a ngi noonu diggante Saliou Thior Mady Saliou Fati région de Dakar daan na Mady Thior 66 kilos Kaolack Saliou Fati Dakar daan na Mady Salih Fatih Takar dan Madi Cor Susan Sikilo Renode Kaulak. Digma Mamai Jombal Marang. Deux minutes de combat. Deuxième combat. Kaulak Dakar. Kawalak nyor di bleu Dakar ceinture rouge final par équipe dig Mama Mbaye Diop Mbaye Diop dan nako ko Mbaye Diop daan 2-0 pour Dakar 2-0 pour Dakar waaw Mbaye fayeeku na de dig moo dan daan démb si individuel yi Mbaye Diop fayeeku na ndeysaan 2-0 pour Dakar. région de Dakar ak Kaolack. Dakar amagum na 2 Kaolack amaguñu. combat bi moo leen départage a départager ndeysaan. 2-0 pour Dakar. Seni Sembène contre Badara Internet. Badara Seni. Badara Seni ndeysaan ñaari ndaanaan lañu. démb Seni daan ko takk ko. oh Badara daan ko. la Badara internet waaw waaw Badara daan na ko de waaw waaw Badara daan na ko waaw benn arbitre bi dafa signalé bleu beneen arbitre ba d'accordul victoire de internet waaw waaw san Badara daan na seeni 2-1 Kaolack am na 2 wala Dakar am na deux Kaolack am un Dakar Kaolack deux un pour Dakar Sele Mene Papongan Papongan Sosokh Sele Mene waaw Sele Mene Dakar Kaolack Sosokh moo ñu Sele Mene jël na Sélé Méné jël na tànk Sélé Sélé Méné jàpp na tànk ba da koy daan daan na ko Papa Ngane daan na Sélé Méné Papa Ngane Sosokh daan na Sélé Méné ndeysaan combat bi leen war a na na 2-2 2-2 waaw Papa Ngane daan na ko ndeysaan def nañ 2-2 Papa Ngane daan na Selem na Radiakhé Ibou Ndiaye moo leen war a départagé. bi moo leen départagé la ñu def diggante Ibou Ndiaye Diofior région de Dakar xale parcelle bi ak Radiakhé bu Kër xale Kaolack bi final baa ngi noonu 120 kilos 2-2 waaw waaw bu daan yaay remporté drapeau du Dakar ñoo ko jël daaw ñoo ko mujjee jël ñoo nekk champion en titre Kaolack depuis ñu koy organisé par équipe jëluñu ko. Radiakhé Ibou Ndiaye Radiakhé Ibou Ndiaye Radiakhé Obali waaw waaw Ibrahima Ndiaye Obali oh Ibou Ndiaye Obali waaw waaw Ibou Ndiaye Obali Radiakhé ndeysaan arbitre baa ngay wax ak ñoom arbitre baa ngay wax ak ñoom rajaxe rajaxe Ibou Ndiaye combat décisif ndeysaan rajaxe Ibou Ndiaye kontaan nañu ci yéen war na ko ndombo Diofior daan na Radiakhé Dakar jëlaat nañ encore trophée ba San pour la deuxième fois Dakar gagné na Kaolack 3 à 2 waaw waaw San c'est le sport la Lamine Diop il n'a pas démérité lamb la Ibou Ndiaye Diofior daan na Radiakhé 3 à 2 pour Dakar ndeysaan c'est le sport félicitations l'équipe de Dakar nos encouragements à l'équipe de Kaolack Céleste Fort sport ndeysaan Ibou Ndiaye Obali daan 120 kg, région de Dakar région de Kaulak. Donc la région de Dakar a encore remporté le drapeau du chef de l'État pour la deuxième fois